dénkaane Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yee julit yi lay siwtaane ñu noonu koy fàttali ndigal fu baaxul si may rafetlu jaamu yàlla may rafetlu diggante jaamu yàlla bu nekk ak morom ma may defal sa borom sant ci sa digg ak sa morom ñu fàttaliku it fàttali it ni ñu ma di ko def ci teer tere yi te ci teer tere yi mbokk nañu nga xam ne maa ngi koy fàttali itam jaxasoo bu bare bi diggante góor jigéen ñi yëpp war nañu jigéen ñi góor yi ñu ko fàttali fàttali jaamu yàlla yi mu war ñu juróom ak weeru koor ak ak ak sarax yëpp ñoo koy fàttali avant bi lislaam ji li neex yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññ rek waaye ku ne xam na ko maa ngi ci sama sama problème maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom te di ko jégalu tuubal yàlla fi jégalu ba ko laaj ko ci xewale ñi tam bu dul jeexale te diglu ko ko laaj kenn jéemoo ko lu ko gën a laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaan loolu itam ñu ngi bis bi nga xam ne ko nga ñu fi ko ko digal ngi buñ ci dundal ko loolu mos leen a màggal yonent bi sax mu ko day sant rek koo xam ne ji mën koo def nga def nga def ko fa kooku fa dafa bopp ko mu niitu ñu koy def nga fekkee ñu fa ngeen ko ak ñoom ñu mën doon waaye bisu gàmm nga mel ne guddi ga ko jëkkoon ak ga ca topp loolu dara ko ci jullit ñu sant yàlla bu baax a baax na ko ko sant di di dolli di ko ñaan si di ñuy digal di ko laaj ko laaj ci xéwal yi ak yërmande yi ak yeneen yi sallallahu alayhi wa taxawin fa lillah ñu ngi jéggu nag baax a baax ñaan ñu yàlla jéggalu dénkaane yi Cheikh Bamba daa dénkaane ci mbokk yeeg julit yi lay siwtaane